yéen a ngi ci jàmm yéen ñëpp bu baax a baax a baax alors wax ci Djiba daf may yomb lool ndax man je toujours takkin ak moom d'ailleurs ñu ngi miinante ci ay tooñ genre dama mës a tàmm di toog sama kër di toppandoo ni muy wéyee ça me faisait rire quoi il m'a toujours fait rire un peu parce que voilà man noonu laa mel donc euh, ñu mës a daje tournage ah ma koy tooñ ma koy jëw te boobu man ak moom ñoo bokk projet ma koy jëw may toppandoo ni muy woyee ndeke mi ngi sama ginnaaw ni may woyee rek ba ne la judd ba rain rain boy et on te flag fay di borom rek mu ne ma Abiba ça va sama àdduna yàqu xaw ma nu ma koy xoolee tournage bi dama ko doon neexal fu ma ko fekk ne ko ça va yaa ngi toog naka mu ça va ayo man dama doon tooñ rek tellement en fait <laughs> mais quand même nit ku baax la ndax euh, ci lay jàppante et c'est un boo xam ne am na couleur am na place am il s'est créé voilà bëriwul ñuy wéyee ni moom bëriwul ñuy inspiré wu ni moom te il travaille avec les bonnes personnes il a l'avenir devant lui il a toute sa carrière devant lui maa ngi koy ñaanal mu ful album bi ful di leen wax yéen ñëpp na ngeen jënd fii kenn waru fi génn te jëndul album bi vraiment et j'ai hâte de découvrir les autres morceaux merci beaucoup